jàmm li ñuy ñaan fii ci Sénégal ngeen jëf mbokk yi téléspectateurs yi ñuy teewlu saa su nekk ci suñu jotaay yu mel nii ñu ngi leen di bu baax di leen euh, jaajëfal ci saxoo ngeen saxoo di ànd ak ñun saa su nekk jëmb jiñ toogal moom jërëtut présenté ci ci ci réew mi ñëpp xam nañ ko ràññee nañ ko muy Serigne Cheikh Awa Balla Ndiaye ñëpp min ko bu baax a baax euh, fii ci Touba ak euh, fële ci Ndakaaru mu fay faral di ñëw lu baree baree bari ak fépp gox boo xam ne si mi ngi nekk euh, ci réew mi Serigne Cheikh Awa Balla Ndiaye ñu gën koo xam ci mu yor cabinet bu mag ñuy tudd ko Taysirul Asir Serigne Cheikh Awa Balla ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ñu bàyyi la nga nuyoog suñu mbokk internet yi ñu doog a Cheikh yow jotaay auzu billah bismillah inna waliya ma tawfiq ala llahi bi aziz mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu siyaar di am ci yéen kontante mbégte mu yaatu ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala suñu kàddu fekk leen si jàmm waaye ginnaaw lañu ginnaaw noonu lañuy siyaare Sëñ Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal jàmm jàmm ju sax di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala suñu kàddu fekk leen si jàmm di siyaar àdduna sépp nag di la ñaanal jàmm macha allah sëriñ Cheikh bal Balla Ndiaye euh, buñ ko waxee euh, xel yëpp day dem ci ni ma ko waxee ci euh, ndorteel li cabinet boobu di Taysirul Ansir di cabinet bu mag ñëpp ràññee ko ci réew mi miin ko ci réew mi mu doon cabinet boo xam ne ay garab yu yu efficace ma nga ca surtout garab yu jëm ci mbirum néegum sëy tey nag point bi ni waxtaanee mm, du génn néegu sëy jafe-jafe yi ci nekk moo xam ku bëgg jëkkër la wala ku bëgg sox soxna ba ci ki nga xam ne si dafa am soxna mais nak euh, dafa xawa tele ci ci ci mbirum katan ci loolu sax ci lañu jëkke parce que mu doon fièvre bo xam ne si bari na ci jamono ji torop torop torop sonal na nit ñi muy euh lu jëm ci mbirum ngóora euh, booy déglu radio yeeg tele yi léegi da nga naan kenn ku ci nekk xana da koy fajj mais nak euh, bu baax bi dëgg jafena mu mel sa cabinet bobu di tay siru asir xamé nañ fa ragné nañ fa ay garab yu baax yo xam ne si sëñ Cheikh awba la ndjay mo koy joxé ndax mën nga ñoo dikkal ci garab yi waaw koy seigne Cheikh na ñu ngi lay nuyu bu baax di len saar di saar aduna sepp benen yoon wax dëgg fa yàlla garab yooyu nga xam ne mooy garabu cant gi ñun àdduna sépp xam ko biir mag mi ak bitim réew mu tàmm ko lool ngir ci liggéey bi ñu koy liggéey ci xam-xam bi man it su man su neexee dem naan damay liggéey ay garab ba noppi ne ku mu neex ci àdduna xool seen saytuwul foo neex yóbbul hmm. laboratoire ak yëpp yóbbul waaye kenn du ko jëfandikoo te am 30 minutes te gisoo résultat hmm? te ci xam-xam lañ koy teg ku mu neex gëstul maanaam ki am soxna ki amul soxna en tout daal en tout cas daal li wér te wóor mooy garab gi moom suñu borom dogal na doo ko jëfandikoo te amoo 30 minutes te gisoo résultat. bi ko fi njëkkee lancé doonoon na mbir mu yëngal réew mi kenn ku ci ne garab gi garab gi garab gi garab gi mu mel ne léegi dafa mel ne lañ naan wax xaw ma da nga tëj gi mi ñu xaw ma bi ñu ba ci biir daal nit ñi ràññee nan xam euh, li nga doon leeral ci garab googu ñi ko jot a jëflante ak ñi nga xam ne si jëf la euh, essayé ko. Euh, mais nag am na ñun ñun ko expliqué xam ne garab gi daal léegi garabu suñu Cheikh Awa Balla Ndiaye li mu ci waxoon lépp lu ko raw ngi ci biir garab boobu. waaw yàlla seet na ne suñ borom dogal na moom duñ ci liggéey lu doy ndax kumaan mu ëpp ndax li ko waral mooy ci xam-xam bi ñu koy liggéey te it maanaam ci këlte garab bi ñu koy liggéey te lépp génnut suñu garab bi réew mi ndax boo xoolee ñun nasaan bi dafa dafa ñoo xaw a nax ci genn fànn. ndax boo xoolee lépp luy jëriñ mu ngi ci alxuraan maa fax naa kitaab fi sa waaye lépp luy faj lu mën a doon mu ngi ci garab ndax suñ borom danoo bind bind ay mindaafoon yoo xam ne dañ ciy faju mu nekk ak ñun nga xam ne ilaa kulli xaal yi du faat garab yooyu nag def sa am leen lu nekk ak la muy faj tànk dafa am lu koy faj sama sëriñ sama waajur Cheikh Alassane Ndiaye góor yàlla maa ngi koy ñaan mu yàgg fi te wér daf may wax naan nit bu amee ci yéen yaakaar di faju bopp bi metti ngeen fajal ko biir bi metti fajul leen ko leen ko yokk jàngoro waaw ndax euh, garab gi faj bopp bi metti ci misaal mën da faj leneen waaye garab gi faj ngóora maanaam képp koo xam ne suñ borom dogal na jël nga ko soo bëggee di nga ko yëg soo bëggul di nga ko yëg te it wax dëgg yàlla lañ koy liggéey génnul suñu garab yi nga xam ne moo nekk biir réew mi te it liggéey ko ci qualité boo xam ne ci xam-xam rek la ci la tegu kum neex it gëstul kum neex xoolal mm, yaakaar naa li may wax am na ñoo xam ne ñoo ngi ci biir réew mi doon ay kilifa xam nañ si dara maanaam garab gi mhm. sunguf la mhm. mais sunguf bi maanaam gàncax la du doon su maanaam xam nga dafa am euh, comme yeneen façon garab yi produit bi dafay bëri muy garabu tubaab bi am na si yoo xam ne maanaam jëlin bi du baax waaye même ci maanaam suñu garab yii nii am na si façon garab yoo xam ne donc nga daal di xam na li ma wax ndax dongab Sëñ Saliou moom yaakaar naa li wax noonu fu la ko teg maanaam ci façon li si façon système bi ñu koy liggéey doo dosage day ëpp su ko defee amoon noo koy jëlee da lay gaañ waaye garab yi nag dama ne yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu ci wàllam docteur te doon ay kilifa ci biir réew mi waaye nga doon ay kilifa ci biir àdduna garab yi ma leen wax jël leen ko ngeen gësu ko tax ndax képp koo xam ne gëstu na ko dina xam ne ma ko li ci li ci li ci dàqati euh, mooy am na tey garabu ngóoro wala garabu tële yi xam da nga koy jël rek euh, xaw a sa bopp sa yëg sa soo paree bu subaa dellu na nga meloon delluwaat ko mais mu mel ne garab gi li ci dàq xëy na da koy da koy traité bam bam bam bam. xam nga dafa am ñoo xam ne seen mën yu moo oyof. seen walax njaan dundut am si ñoo xamne ne seen walax njaan dafa kët mënuñoo am doom ci góor ñi ci misal am na ñoo xamne bu fekke dañuy séeg seen soxna ngeen bal ndax leer rek lañ si jublu seen mënewu dafay gaaw ñëw koku mënew bi mo oyof ya ma dig am na ñoo xamne dañuy séeg seen soxna duñ yek ñoom ngeen bal ma ndax leer laa djub ndax doomu adam day dung lo xamne ñak ko xam mo dama koy dund Eh, maanaam eh, dafay séeg soxnaam te mu yëg na mu baal ma du gaaw a yëg boppam te mënta am doom loolu nag li ko waral mooy walax njaan bu manqué wa illaa walax njaan bu kët baa bu fat loolu nag garab yi nga xam ne moom la ñuy liggéey képp koo xam ne suñ borom jël nga ko suñu borom dogal na nga jël ko 40 jours insha allahu rabi taala dina la woon a xar baa xaman xërëm mhm. kon ki nga xam ne si dafa am euh, soxnaam mu sëy moom lu yàgg am ay benn cinq ans wala di jëm ci six ans sept ans mënul fexe ba am doom te xool nañ fu ne hôpital rajo def ana analyse gisuñu dara wala gisuñu benn feebar bu koy tee am doom kooku bu fekkee tey mbirum olof la bu ñëwee ci yow nga faj ko nga faj ko ba mu am. am na si ñoo xam ne nag duma ma leen mën a faj ndax li waral du ma leen mën a faj mooy maanaam suñu borom bi mu bindee ruux yi jàlle ne leen àlla si borom ma xaalu bale ruuxu wasulaahi njëkk ko ak kooku soob. ñu ko soob suñ borom dafa wax ruux yooyu ñu lekkante yàgg naa ko wax am na ñoo xam ne dañoo lekk ñett ñu ñëw lekk leen am ñoo xam ne dañoo ñëw lekk fukk ñu ñëw lekk ko am koo xam daa lekkul dara ki ñëw ko ke lekkul dara bu diggee sa àdduna du am doom kooku maanaam man si xoobaale bu fekkee dama am fitna mën naa koo faj damay wax lu ma wax loo xam ne tegu moo fenn kooku mooy ki jaasir ki jaasir nag nga xam ne mënta am doom man su ma ko xoolee dinaa xam ne kii kat dafa jaasir mën mënta am doom dama naan ko man kat mënuma laa faj waaye bu fekkee leerul ma ko bu dee jël xaalisam dem di yàq ci sëriñ te su boobaa da koy sonal kon ci góor ñi ci jigéen ñi am si ñoo xam ne suñu borom moo dogal ñoom mënuñoo am doom loolu du jàmbar du lenn coobare suñu borom ah, waaye nag maanaam ci góor ñi am si ñoo xam ne danoo feebar waaye ci jigéen ñi it am na si ñoo xam ne danoo feebar am na benn jinne buy tudd saarixu mas naa ko message dafa mas a dem ci yoon yonent yàlla Suleymaan na ko waloon boo ñëw mu ne ko daa bëggoon nga xool ma lu waral jigéen ñi ak góor ñi seen am doom bi di sore moom mu dem def gëstu bu yàgg jënd ji ma ngi tudd saayra ko borom xam-xam yi xam nañ ko jënde euh, dinañ ci ñëw tuuti ndax loo xam ne day dund junniy at di nàmpal fanweeri at yaa may dégg maanaam ci misaal mën a nekk ba Côte d'Ivoire doom nekk fii Sénégal nga mën a laal doomam mu ñëw maanaam mu jóge fa ñëw te du yàq ci programme doom loolu ca bëri suñu borom la waaye bi mu demee def gëstu dafa wax ne lii mooy teyaam doom bututu njurukaay goo xam ne dafay walbatiku bututu njurukaay goo xam ne dafa am ndox mu xonq baa mu sonn muy fibron ci ñun ko gën a xamee bututu njurukaay goo xam ne dafa am ngelaw ngelawal rab yaa muy dégg maanaam ak bututu njurukaay goo xam ne boo gisee ñu la bututu njurukaay goo xam ne dafay dafay walbatiku mooy dafa am feebar dafa am maladie lu mel ndox ci si ndoxam si da samp nga xam bu fekke da fay seek borom da fay gaaw genn et puis da bu dee bu dee bu dee dafay seeg borom këram maanaam dafay moom bu jigéen ka lay waxate mm-hmm. bu dee bu dee bu dee daa seeg borom kërëm ba nopi bu jigé lolay day genn mm-hmm. lolou ma fa wara mëna am ben temps ba manam don lu mu daret bu ni ko suñu borom programme manam bamuy dundé manam bamuy am ay ciir du noy ba ni gané aduna ci lepp ma suñu borom mo ko teung ci ñeent fu guddi bu lolou da fa gënal fa sens dootul mën am doom yaa may dégg loolu ma ñàkk naa xam naa àddina si yëpp xam na si léegi bu fekkee loolu am na maanaam mu gënaat beneen jafe-jafe la ko jur mooy butu ñuul kaay goo xam ne maanaam dafay tourné développé ko léegi loolu bokk na si li ko gën a waral mooy biir bu tàng nga xam ne ndoxum siti mi da koo sam da koo sam mooy ndoxum siti mi daa fees si biiram nga xam ne biiram sax dafa tàng kooku maanaam bu seeg borom këram dafay génnaat kooku du mën a sëy maanaam lu mu yàgg yàgg yàgg dafay fajuwut maanaam mën naa mën bañ am doom comme xam naa bu ñu ko toppee moom daal comme <laughs> mu mel ne euh, xam-xam bi yaatu na ci trop trop trop trop mais waxtu yi moo la ko du moo la ko dul may kon daal su ma déggee sa wax mu mel ne lu jëm ci mbirum euh, ay faru rab ak wala ay xeetu rab mën na gàllankoor nit ki daal ba ba du am doom wala euh, bu nam waroon a amee doom du ko amee ne doom wala mu téye ko sax ba li nga xam ne si mooy ci wàllum ngóora ba ni mu waroon a yëg dëgg dëgg dëgg ci biirum say duutu ko du du ko yëgati kon mu mel ne ay farol ab seex bi mën naa jàpp nit ba mu njort nañ koo liggéey waaw ndax farol li muy téye ci doomu aadama ngóor a mës gën a li muy téye ci doomu aadama ngóor moo si gën a tuuti damay wax ne bépp saaxir boo gis bu nekk baatil lay misaal nit ki am faru rab mu doon nit may dégg waaye it dina yor weneen melo woo xam ne nit soxlawu ko ndax nit ki bu fekkee dafa am faru rab wa ilaa moo am coro rab mu xam ku góor wala ku jigéen mën na koo téye ci wàllu nguuram mën na koo téye ci wàllu am-amam mën na koo téye ci wàllu nekk nag ak doomu aadama yi mën naa tax lim liggéey bi muy liggéey sax da koy sof. mën naa tax liggéey bi muy liggéey da ko lu mu ko amal amal amal njëriñ da koy soof li waral loolu mooy feebar bi da koy jàpp ba yaramam dafay diis xolam di tàng yaramam di diis mu dañ koo sëf aw fitam di rëcc bu tëddee di nelaw maanaam mën naa teel a yow loolu waaye day biddanti maanaam lu sabab loolu mën lool mën naa teel a yeewu lool waaw mën naa te kooku day teel a yeewu lool mm-hmm. waaye du mën a jug nga xam day mel ni dañ ko bës ci lal bi su ko defee kookee day dem ba liggéey bi toog da koy gënal mu dem liggéey nga xam ne même bu demee sax ba toog du sawar mel ne deret bi dafa way loolu farab moo koy def et puis mu waral même booy liggéey di am xaalis xaalis bi ngay yox du taxaw sa loxo waaye noonu la mën a jàpp doomu aadama ba gàllankoor ko ci biir néegu sëy faru ni mu mën a gàllankoor nit ki ba mu doon ba mu doonee ab jànq ba ni mu ta nekkee ci programme sëy ba ni muy sëyee ba ni muy màggate lépp leen lu nekk ak na muy jàppe doomu aadama maanaam ci biir néegu néegu sëy it mën na ko gàllankoor ba du am doom waaye laataa néegu sëy it mën na ko gàllankoor boo du am jëkkër ku mu waxal ba am yaakaar ba nit ñëpp am am yaakaar mu ga mu am tuuti gàllankoor gàllankoor bi de doon ci yow baa mu doon ci moom li ko waral mooy rab mën na ko def xam naa ne temps bi moo gàtt waaye waaye beneen yoon dinaa ko faram-fàcce benn par benn incha allah. incha yi nga xam ne ñoom euh, dañuy taxaw lu yàgg yàgg duñ am borom kër euh, xëy na du ñàkk rab moo leen ko teg ñii xëy na dañoo dàqee wala am na ñoo xam ne si leneen ay gàllankoor moo leen ko moo leen ko moo leen ko teg euh, lu ci mën a doon suñu Cheikh Awa Balla ndax am na am nga cent francs. waa xam nga bu njëkkoon mag ñi. bu fekkoon nit ki dafa dem ba mat ab jànq fi muy am fukki at ak juróom jàpp fukki at ak juróom benn dañ koy sangat bu dee koo xam ne ay mbokkam dafa am am xàmb fi leen ko fekkee nag fi leen ko bàyyi fi leen ko fi dañoo judd fekk ko fi tanit buñ deewit fi leen koy bàyyi nit ku nekk seen aada bu fekkee dafa am ay xam dañ koy sangat sangat yoo xam ne mooy tax mu jar ma ngi doon doon wax naa fi mu doon nii diw dafa toll si jaayu koy sangat waaye ci biir sangat bi it maanaam dañ koy aar loo xam ne kenn du mën a àgg ci kawam nga xam ne ku jéem a seeg moom tële waaw beneen bi mooy bu fekkee ñun ñii di jamono ji fi mu toll nit ki day tollu fukk at ak juróom ñaan toll gu ci am say ñu ko di maanaam ñu di ko bàyyi ba mu am 40 dafa am foo xam ne soo fa tollee rab moo lay gën a soxla comme nit mi rab daf lay utiliser comme ni muy utiliser soxnaam su ko defee képp ku wax ak yow ba am ci yaakaar comme ni nga ko jiñee sànq dafay dem te du kenn du kenn doo xam la ko dàq ginnaaw yow ginnaaw nag kenn xamul la ko dàq dañ see war a jóg moom sax du xam lan moo ko dàq fekk na rab moo dox diggante moom ci loo ñàkk fay ful la loolu rab moo koy def su ko defee yow boo boo demee ba nga xam ne maanaam da am borom kër rab mën na la yàqal sab sëy muy tas ngay sëy di tas sëy di tas sëy di tas loolu li ko waral rab la ñaan koo xam dafa awlu lu mu def tey defaat ko déedéet loolu rab moo koy def ndax loo xam ne day jàpp nit ki ba mu tële jàpp nit ki ba mu dof te doo ko gis bu la waxee ne la mën naa laa tee am borom ko war nga ko gëm ndax ndax ñaata nit ngay gis ci biir dëkk bi ñoo xam ne dañuy gàddu seeni sagar di dox di waxtu fekk na li leen di waxloo saruwu leen rab benn sayloo saruwu leen kon rab bi mën def lool nak mën japp nit bu do am jëkër ndax bëpp saxir ba gis ba bat lay misaal macha allah mi ngok euh, muy Serigne Cheikh Awa Balla ndjay ñu fekkon ko fi ci euh, Touba di dalu wayam euh, ñepp min ko ragne ko bu baaxa baax borom cabinet bu mag bi di Taysirul Asir si Cheikh Awa Balla ñu bayila nga tàggatoo tok suñu bokk internet di ba beneen. wa ñu ngi leen di nuyu di sa adun sepp di ñaanal Cheikh Mouhamadul muntakhal basir suñu borom may ko fonu gudd ànd ak wér yaram ak mboolem seen mboolem xalifa rek bu nekk ci àdduna di ko seer di ko ñaaw jàmm yéen ñi ñu di la ñaan eh, bu fekkee ni numéro bi 77 la 392 09 92 wala 76 396 23 54 bu fekkee barab bi may nekk Ndakaaru Castor la bu fekkee barab bi Touba Ndamatou la Guy Tukulóor wala Kër Sëñ rek.